njiitalu association bi ëmb compagnie d'assurance yi ñoo leen ni may li ci yéenikaay yi. denc ànd ak Malal Junior Diagne. bismillah. pesum kanam borom fayul Bopam Lolé le Sud Quotidien xëyee ci bésub tey bi journal Sud Quotidien ni fang ci xëtam bu njëkk Abdou président groupe parlementaire Beno Bokk mi déposé ci table président assemblée nationale ab motion de censure la mu si jublu nag mooy ne gouvernement bu Ousmane Sonko fexé kon ba daal di ci bop primature gëmu nek wa Benno Bokk gisé nak ni doxalin bi nguur gi am rawatina doxalin Ousmane Sonko am moy wañee kon ñak wek ñak jox ak ñak respecté institution yi ci réew mi lii moo tax ko ñu daal tontu jéego Usman Sonko teg jëm ci ñoom te Wormalulen, leen fulalu leen lii ba journal Sud Quotidien ni ci atum 1960 ba tey jii ñii di waa Benno Bokk Yaakaar yëkkati nañu coow xam ni képp la ci assemblée nationale L'as daal di koy ni ko Ousmane Sonko ak gouvernement bi ñoo ngi ci éjectable Masali ci biir journal bi ni dañoo yaakaar ni kon tontu bi mooy bi gën a saf bi gën a ñu tontu Ousmane Sonko Sonko gannaaw bu Holinum xoolee doxalinam ak président Bassirou Diomaye Faye jëmee ci assemblée nationale Mamadou Massali ci biir journal L'As ni tontu bi képp mooy bi ñu xaar ngir ak Ousmane Sonko defante ak moom lu Tibir gën a xuus ci biir journal yi di gis ni kon Le Quotidien mon bati le la qui ci taibi, mortal combat manam ku la ko Dobin nga ndobin koko, ne moi dox digante ni, di nguur ak ñi nekk politique gi majorité de l'Assemblée, manam ku la ko Koko, nga ndobin ko ne dox diggante ñii di nguur ak ci politique gi majorité de l'Assemblée nationale li lépp le quotidien yi la sabab moy djégo bi président de la république bi jël ngir rek dindi fi HCCT ak conseil économique social et environnemental li motax ba journal bi japp ni kon wa benn bokk yaakaar dañoo gis ni gannaaw ba nguur gi ak seen ay nit ñom ñoo parti bu ci bi kon kon soobu ci deuxième round tribune yenneka gaay daal di leen feelu itam ci coow loolu le ne Ousmane Sonko ak gouvernement ñoo ngi toog ci chaise éjectable aljuma ji moo nar a doon ajuma bu gën a tar ci moom ak gouvernement am Le Quotidien nag ni ca Chine gëmu ne moom président Bassirou Diomaye fay ne jot na dogal bi tey itam dina xam ban taxawaay lay am bu ñibbisee ci réewum Sénégal gi bés bi le jour moom feelu leen ni assemblée nationale bi salfaañoo na ba noppi ndax fu mu toll nii mbooleem seen leader fa nekk ku ci nekk yaa ngi jéem a xëcc mbàjj bi sa wet kon mën a gën a jëfandikoo xew diggante nguur gi ak kuje politique gi bés bi le jour ni coow li lu muy bëri bëri lu ñu yëkkati kàddu jëmale ko ci ay motion de censure ak yëf yu ni mel am na ay leader politique gi nekk ci suuf di manœuvrer ndax nag boo xoolee bu baax a baax ñiy fare ak Macky Sall ñoo ngi lëngoo ak labat ñi di waa Idrissa Seck ak libéraux yi ngir taxawal kon kuréel gu bees ci waxtu woowu ba léegi Amadou Ba nekkoon deuxième ci élection présidentielle yi moom itam lal na ay ndëgg sërëxam ngir fexeendi kon ba dugal ci parti bu ñu waaj a taxawal ay nit yu bokk ci ca AFP ak yeneen i force politique source a moom nee na nag ajuma ji ñu jëm mooy ajuma de tous les dangers pour Ousmane Sonko ak gouvernement foofee la corno bokkum yëkkatee kàddoom ni taxawaay bi waa benn bokk yaakaar am mooy taxawaay bi war mooy taxawaay bi ñu doon xaar ci ñoom ndax nag ñoom député yi danoo gis ni nguur gi rawatina premier ministre bi respecté wu leen weegu leen joxu leen cër te loolee waruta demee noonu loola kan moo tax ba gaa yi wax seeni mbagg ni nañu delloo buum ca booy booy ga ndax ñoom député yi nañu mat goo xam ku leen ko rokkos l'observateur moom xëy ni coow li muy bëri bëri Bassirou Diomaye Faye am na ay mbir yu muy nëbb askanu Sénégal yooye mbir bawa ci jokkalante ak waxtaan bi doxoon diggante président de la république ak juróom-ñaari sage yu conseil constitutionnel lan la waxante ak juróom-ñaari sage yooyu le jëm ci tasaare assemblée nationale bi ak itam élection législative yu bees loolee lépp journal bi l'observateur mu ngi ciy indi ay leeral bu nekkee nag ni coowal assemblée nationale ak motion de censure mooy li gën a fës Bougane Gueye Dany itam moom leaderu gëm sa bopp bi saf na sàpp ci yéenekaay yi Bougane Gueye Dany kon yëkkati kàddoom ni fatwa la ñu war a dóor kii di Cheikh Oumar Diagne ngir kon dakkal ñàkk ma ak ñàkk cër gi mu dëkke jëmale ko ci tarixa yi Bougane Gueye Dany jàpp nag ni kon dañoo war a moytandiku bàyyi ba jaan wi romb nu ñuy dóor ci watat wi moom njiital gëm sa bopp ni Cheikh Oumar Diagne des ko war a kar léegi foqati li mu yor tekk ay ndombal tànkam ngir muccal diine ak këru diine ci réewum Sénégal gi mbir mu itteel réewum Sénégal mooy ONAS Gate jëriñ ji ñu dénk wàllu justice bi ci réew mii di Oumar Diagne ne jox na ndogal kii di procureur de la république ngir nag mu gëstu yët mbët bu baax a baax a coolo la ngir fexeen kon ba nu xam dëgg gi fan la féete ndax itam lu cool yi bëri bëri bëri koppari Sénégal alalu Sénégal la ñuy waxtaane ci moomu la mbir nu daanelee yéene kaay yi ji ak l'observateur mi xëyoon dem tribunal bu ndakaaru njaay la mu ñu fa jëlal nag mooy benn professeur bu mathématique doon jàngale ay cours particulier ñaari xale yu jigéen la mujjee ak ñoom nag mooy ci wetu a plus b égal daa mujjee kon futti ñaari gone jigéen ya di siim seen mari ngaañ